ndax bu fekkentene askanam la laaj laaj dafa don ñaar yi nga xamne kenn mënu ko genn ci réew mi ndax ji euh bo topé askanam da ngay déglu bax li lay wax da ngay dem ba ci ci laman ci fu njuugu ngay jaar dem ci njaajan njaay dem ci abou dardaay dem ba ci sayyidna omar càllale gi dagul fen ma nga càllale gi man naa ko wax goor ci kaw goor ba ci seydina omar mi nga xamne mom danaka mo woné won ñuy topé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci xéetu yar ak teggin ak warma kon nak cheikh ibra omar la yor ci ci ci ci ci ci ci askan te goor ci ko goor ci ko goor la ba nopi ñi fi doon tekki demb ci réew mii nii eh, daanaka ñëpp ñëpp deretam lañu Mm, eh, ndax eh, damel fall la dan sant eh, ci la jor la sant djub kon nak lolu boko sété seetee defe ci walu askan manam gën ko ci lañ doon gënanté demb lolu ab yombul ci sénégal ko fi tek dar rek mbokam nga benn ngokk bi moy liñuy wax xam-xamu alcorane ak ku dëkk ci senegal umpale woo ni ci njare njare mel te maam Demba njare mooy maamam ci maam Seynabou Njaay eh, looloo tax nag ñu war a xam ne loolu rek ndax démb ak tey jii yépp bari na ku ku ku xam ne kii bu masaan jàq ci bëgg aajoom faju ci maami Cheikh Ibra lay dem njare njare yi dëkk bu ñu mas a yendu nit ñi dañ leen di rang waaw Euh, ba tey jii tamit loolu moo nekk ndax sëñ Tuubaa lu mu fekk da koy ful defaraat ko kon ñaari ñaari wet yooyu rek la ñu nawee nit te Cheikh Ibra kenn ëppaleewu ko ko foofu la jóge moom kon ci Seydina Omar ak euh, ci ci ci ci njare diggante boobu la jóge waaw mu nga gën jamono nag dëkk bu ñu wax turik atuman ñu bari sax dañu wax njabe waaye turik atuman la gën jamono ndax de fiche de renseignement yi tubaab yi andi mm. loolu moo ca ne waaw Euh, loolu nag mooy mooy càllal ak Cheikh Ibra tubarkal jërëjëf mbokk yeen ñu ni soga dab tay ñu dalal fi sëñ jage Jóob ngir ñu wara waxtane Cheikh Ibrahima Fall dégg ngeen ni eh, mu tënkalee cyallalam waaye li ci itteel rek dégg ngeen fim ko indi ni mu demee ba ci Seydina Omar eh, mën na noo tambalé fofu laaj yi sax sëñ jaga amna ñu bari ñu koy wax lolit ñu léra ko né Seydina Omar bi mi dugg ci lislaam fanweer ak juróom ñent la fekkon wax nañ ñenn ñi nga xamni seen i gëstut wax nañ layal nañ lool ci Cheikh Ibrahima mën nañ ci andi andiwaat yeneen wa kay xam nga lolu bari wax ji yaatu na. waaye nag am na ci lu bari loo xamante ne la xam nga histoire. dafa baaxoo am woroo. Euh, ndax Cheikh Ibrahima ñeen fukkeelu taalibe bi ñuy wax ne moom la. Mm. sëñ Omar Diop mooy ñeen fukkeelu taalibe bi sëñ Tuubaa. Mm. di Seydina Omar mu njëkk ma. Mm-hmm. seigne Omar Diop mii ci Mbàkke mm-hmm. te seigne touba bindal ko xasida gogu ñuy wax miftahul xuyub téere bobu mm-hmm. fi jawaabi xilli Omar Diop mm-hmm. seigne Omar Diop moy ñeen fukel Cheikh Ibra du ñeen fukel waaw lolu mom moy li nga xam moy mo mo mo mo nek ba taxna euh, ñu bari sax ñu koy wax ci seenu xër rek waaye ñeen fukelu talib seigne touba mom seigne Omar Diop la te seigne Omar njuga xari la tudon Eh, bi mu ñëwee sëñ bi ne ko noo tudd mu ne ko njuga xari mu ne ko Omar kon defe naa ne ñeent fukkeel boobu ñuy wax ñu bari nag wax nañ ko ba nga xam ne yaatu na lool waaye li gën a wér mooy moom du ñeen fukkeelu du ñeen fukkeelu taalibe waaw waaye nag doxinu Seydina Omar bi mu yor ak melo bi mu yor ak donn gi mu ko donn ci sayir ak ci baatin ak njàmbaar gi ak pas-pas bi nga xamne mom la am ci limay wone mu jaral ko bakkanam jaral ko bakkanu ñeneen ni mm-hmm. looloo tax ñu bari màndaxe ko ba ag fofu waa kay loolu <coughs> ok xam ne gis na ci yeen la yo xamanteni mo xamna loolu na ci ni nga ko waxee nonu moy mm-hmm. sayyidna muhammad bi mu waxee ne kenn ci yeen nga moom du mat lu mako gënal ndayam gënal ko bayam mm-hmm. sayyidna umar ne ko ya ma gënal sama ndey gënal ma sama bay bam dess man yonente bi bamtu ko ne ko du kenn ci yeen nga du mat lu mako gënal ndayam ak bayam mu ne ko ya ma gënal sama ndey gënal ma sama Baye lool nak dafa melni Cheikh ibrahim lool la suuy ci seigne Touba eh, ci diggante bobu seigne bi waté buñ bëggona xam Cheikh ibrahim nak kañ la tàbbi ci loxoy seigne bi nan la def ba gis seigne Touba loolu tamit lu mata wax la mm. ndax man dama nekko nak mag ño xamni Cheikh ibrahim da len yar mm-hmm. ñuy wax ne ma lii ma lay wax Cheikh ibrahim ko wax ma dégg ko bay Cheikh ndjay da bay ca ngaay mm. dama da dem ci mom diko laaj mm. mu ne ma mag Serigne Assane nafa an allah bi barakaatihi ñoo bokk genn guddi gënu gane jamono. Cheikh Ndiaye Dabaye ku ne xam na ko. moom moo ma daan wax ne ma Cheikh Ibra lañ ma tuddee moo ma yar. waaw moo ma daan wax nag ni Cheikh ñëwee ci loxol sëriñ bi. loolu xam nga. lu lu lu lu jafe la da xise yi nag danay wute. waaye la ma jëlee ca moom daal lii la. waaw nga xam ne Cheikh Ibra. boo ko dee seet histoire bu gudd la. ndax maam Saliou Fall rakkam mm-hmm. bi mu bokkal ndey ak baay mm-hmm. ñu bokk maam si Seynabou Ndiaye mm-hmm. maam Saliou wax histoire Cheikh Ibra te waxoo ko umpale Cheikh Ibra la ndax moom ci boppam leeru sëriñ bi maam Saliou la jëkk a feeñu ci Cheikh Ibra ci sayir mi ci àdduna ndax buñ masaan bokk nekk ah, euh, maam Saliou day yewwu ne ko sa sëriñ bi de gis naa bu ñu nekkee ci tool yi mu topp leeram dinu topp gis naa buñ duggee ci néeg bi léeg-léeg fi lay fanaan gis naa tamit léeg-léeg ñu jëm fi barab ma séen ko mu mu mu ne fa ñu agsi fekk ko fa fi mu nekk nii nag dafa jot ci nga dem toppi ko ah booba bu ko defee nag Cheikh Ibra ne ko ban màndarga lay am ci ne mi ngi fii ñëw Cheikh Ibra sax xam na lépp waaye lu nekk dafa am fu ko suñ borom di jaarale mm-hmm. mu ne ko néeg bii ñuy tëdd dana fi ñëw guddi xam nga lu nekk daa am fu muy tàmbale bi euh, Ibra ne ko ba fi ñëwatee na nga këpp tànk bi këpp tànk bi mu ne ko ah nan lay këppee tànk koo xam ne buy dugg doo ko gis buy jën doo ko gis mu ne ko loolu mooy kéemaanam maanaam fu mu dugg bàyyi fa màndarga te xam nga loolu ko am baatin te xam sëñ Tuubaa xam nga de Seex Ibra wax na dëgg sëñ Tuubaa fu mu dugg ba fa génnee boo fa duggee di nga xam ne duggoon na fa waaw ndax am na koo xam ne kii euh, wax na ne euh, ñëw na di siyaare kenn kii seexi sëñ Tuubaa yi ne ko mu ne ko lu fiy xeeñ mu ne ko palmaana fiy xeeñ mu ne ko biig moom la sëñ Tuubaa soloon bi mu ñëwee fii te boobu fekk na sëñ bi làqu ci sayir waaw nga xam ne jeexital gi muy jeexital ci nit noonu lay jeexitale ci barab loolu moom defe naa sëñ Saare doo la ko jàngal sëñ bi moom maanaam kaaynaat yi li yàlla bind yëpp lu ci nekk da ciy yëbb moom sibxatallah aman axsanu min allahi sibxatan wa nahnu lahu abidun loolu nit ñi xamuñu ne sëñ Tuubaa la suñ suñ borom di wax ko waaw suubug suñ borom mooy sëñ Tuubaa waaw bu ko defee nag Cheikh Ibra nag foofu la ta la ko waxee loolu sëñ maam Saliou nag gis sëriñ bi leeram li cëpp ci néeg bi mu dëpp ko ba ba Cheikh Ibra xëyee la gis tànk bi ne ko moom la mujj gi nag Cheikh Ibra daal di wul dem wut seeti sëriñ bi hmm. mu mu mu mu xaw a diit diital maam Saliou ne ko demal toppi ko wala ma dem toppi ko hmm. te bu ma ko topp jee bu ma ñëwee maay doon sa kilifa te mun maa doon sa kilifa hmm. waaw ndax Cheikh Ibra kat nee na te ku ne xam na ne aw man kaana mayitan fa naa lahu mm-hmm. wa jacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi mm-hmm. kaman masaluhu fi zulumaatin laysa bi xaarijin minha mm-hmm. kazalika zuyina li kaafiriina maa kaanu yaxmaluun aaya bu doy waar a ngoog sëñ bi waaw aaya boobu nga gis noonu ñu bari nee nañ mooy sakkare faatiha sax aw man kaana mayitan eh, loolee nag Cheikh Ibra da caa wax lu bari dundug Cheikh Ibra nekk noonu aw man kaana mayitan fa axyaynaahu moo tax mu wax ne ñu yàlla bind maa ci ëpp xabru te loolu du dara ci yàlla mais dëkk bu ne suul nañ ma fa ku ne jur na ma mel naa nu ne xeet wu ne jaar naa ci te dinañ ci ñëw sax ci li waral yoonu Baye Fall duñ julli duñu woor euh, sëñ Tuubaa du ne kenn bul julli bul woor du ko wax kenn bu ko digal kenn na leer ñëpp Cheikh Ibra la sunu borom fayee loolu ci baaxu sëriñ bi loolu danañ ci waxtaan ci kanam waaw léegi nag bi nga xamante ne bii nag mm, jóg na nag mm-hmm. di wëri sëriñ bi mm-hmm. loolu sëñ Moussa Ka nettali na ci lu bare bare bare bare bare bare mm-hmm. waaye nag mm, Baye Cheikh Ndiaye Daabay nettali na ma ne ma bi mu koy wër euh, dem na fu ne euh, loolu nag liñ ci jublu bu fekkente ne boroom xel mu gàtt la danaan waaw ginnaaw moom ca démb ca sun borom la waxee ak sëriñ bi kon lu mu koy wëre Euh, fekk na Cheikh Ibra dundam yëpp damay wax ne problème politique yi ñu nekke ak coono bi ñu nekke wallahi azim bu ñëpp dellu woon ci melam Sénégal naat ba faw te dinaa wax li tax boo noppee nga laaj ma la tax sëñ Touba daf ko fi def mu nekk modèle du du modèle ci taalibe kese ak ni ñu toppee sëñ bi sëñ tubaa da ko def mu nekk modèle boo xam ne réussite économique ak réussite politique ak philosophie boo xamante ne bii ku la gis xam ne africain nii la war a mel Cheikh Ibrahima ko jëkk wane mhm. te te maanaam amul lenn luy doxal nit ci àdduna mhm. te jëkku ci nasaraan wane ko kon nag loolu danañ danañ ci waxtaan mhm. ndax loolu tamit mooy mooy waxtaanu tey waaw ba xam ne coow li bari na wax ji bari na gis nga li ñuy jàmbat lépp léegi nag mu daal di nag tàggoo Euh, wër gi mu ko doon wër nag laa lay wax ne. du wër goo xamante ne gi wër gu ñàkk xam la. Mm-hmm. wër gu wane ne. Mm-hmm. lépp lu nit bëgg faw nga sonn ci. Mm-hmm. bu dee lu baax. waaye lii nit ñi bëgg léegi. nga xam ne tey jii moo xew ci yoonu murit bëgg di dund ci baaxu sëñ Tuubaa ak barkeb sëñ Tuubaa te doo defal dara sëriñ bi loolu moo waraloon loolu nga gis muy wër noonu. loolu la. gis nga mu dem na fu bari. gis nga bi mu laata ñëw ci sëñ bi. Mhm. dégg euh, daana yëkkati tànkam bi bàyyi seex njamaneen daana yëkkati tànkam bi. Mhm. ñu gis ci ay heure mhm. mu ne ah doom bi ma laata ñëw ci sëñ Tuubaa di guddi guni gën jaa daana julli téeméeri rakk te alxuraan laa daan laa daan naafila waaye nag booba jamono di sama naafila doom bàyyi seex njamaa ma ko wax de. ne ma wuute nag seen naafila yi. ndax man xanaa xamu leen ne fu ma ne allahu akbar rek <laughs> moo tax jullit Cheikh Ibra ku ci wax xamoo li ngay wax ne fu ma ne allahu akbar mhm. yàlla may na ma man Yoro Fall mhm. eh, waliw yi dee ak yi dund yëpp yàlla da leen di dekkal ñu ñëw tiim tiim ma di riir rek ne allahu akbar fu ma ko waxee mhm. waliw yi dund ak yi dee xanaa xamoo looloo tax ñu tudde ko sooroor bi sëñ Fallou du nit xamoon nga loolu yooyu yëpp maa ngi ci bëggoon maanaam cër bi mu am ci julli ku yàlla bind amoo ku dul sëriñ Touba sëriñ Touba nag dama ko boolewul ci wax ji moom sëriñ Touba man ay mbiram nit ñee ci sori waaye man xam naa ne sëriñ Touba du sëriñ te loolu sëriñ Saliou foo ma wax ko sëriñ Touba du sëriñ borom la malaka nii lay wax malaka nii nag xam nga baat bi malaka nii malaka nii ab sëriñ du ko wax demal wëral ma bi àdduna sosoo ba léegi baatu malaka nii ku ko ñimee wax benn baat boobu nee rek gis naa ko ci téere diw ملكني مالك كل جامع وكل مسجد من المجامع ملكني دنيا وأخرى الله تفسير لا إله إلا الله ملكني دنيا وأخرى سمد ما عنده ليختاره محمد وملكني كان موكا نيمي وهب لي يب باخنا واي ملكني واو زمام ذوي الإسلام فيها فمن أبى مكوسي في الدنيا ازل مع الجزي يا خسد الله حجاكم <laughs> waaw léegi nag. boobu mu daal di nag mu daal di dégg nga sëñ Moussa Ka ne. mës hmm. nay xibaar ak njébbalu. Hmm. bay wax ne yàlla mi ko moom. Hmm. moo ko ne bàmba moo la moom raasi ko raas. nit lu mu bëgg ci lu baax da koy raas. da koy wër. lu baax kenn du toog mu fekk si la. raasi ko jox ko say pexe. léegi nag loolu moo amul woon. maanaam fekk nit jël sa pexe yëpp jox ko. mu jox la yalla te lol dinañ ci ñew mhm. legi nak mu daldi di bayiko fu mu dekk ah. ah, bari na histoire bu bari bu ci am mhm. ndax euh, way ndare mhm. dañ daan ndeysaan bi se mam Saliou Fall làmmiñu dafa xawona lu danaka dafa melni wax ji leerul won Cheikh Ibra jamono xam nga xamuñu luy tarbiya hmm, seigne bi xamuñu ko de Euh, booba nag xamuñu loolu njàng lañu xam fa mu bàyyi ko ak di woote démb Cheikh Ibra nag daal di tàggoo nag di wëri sëriñ bi booba dañoo gone gone yi ci dëkk bi dañ leen waxoon nañu nañ aw woy mag ñi di ko wax xam nga dañ ne gone naar bu ndaw lu mu wax ci barkelle ba la ko déggee dañ daan tëgg naan yolom géeñoo yolom géeñoo maam Sali maam Seydou bu la lañuy wax de mm-hmm. yolom géeñoo yolom géeñoo xam nga lu yolom géeñoo ñu ne dafa jur maam Saliou muy ab lu kon amul njëriñ mu jur Cheikh Ibra mu di ab dof dem toppi moroomu jaamam naan dafa bàmba ji boobu baatu murit xamuñu ko diw dafay bàmba ji lañuy ñuy wax xam nga loolu li ko andi mooy euh, sëñ Tuubaa lu mu dàq la loolu danañ ci wax li tax mu ne muridullaahi moo tax ay bambisme ak yooyu yëpp jarul di wax ndax sëñ Tuubaa buggul loolu ah, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee hmm. dafa fekk Jésus Christ hmm. ñi ko ñi ko yaakaar ñu leen di wooyee christ chrétien hmm. ndax christ hmm. kon turam a ngi hmm. ci ci ci ci ñi ñuy wooye waa këram confucius confucianisme la ñuy wax eh, ku ci mat a woote dara rek sa tur ngay jël ñu koy woowe sa waa kër waaye doo jël turu suñu borom Mm-hmm. naa Mohamed bi mu ñëwee. Mm-hmm. ba ba tey boo xoolee tiir yi tubaab yi Mohamed tan ngay gis ñuy mm-hmm. tuddee. waaw jullit yi. Eh, waaye al islam la wax moom sëñ Tuubaa bi mu ñëwee. ñu naan dafa diw dafa bàmba ji mu ne muridu la waaw Cheikh Ibra nag. daal di waaj nag daal di tàmbali nag di ko wër. bi mu koy wëri tamit bul defe ne da ko wër ci. wër nii rek di ko seet ci gox yi. Hmm. Hmm. Ah, da ko doon seet ci hmm. batin xam nga seet ta ñak ndax gis nga ni seigne touba tak touba wi da ko doon seet kon seet mënul ñàkk waaw ndax sun borom mo na lool wa waaw nak mu daldi waj nak fas yéene sax njaay da bay neena ma nak jaar na fu bari wa waye ki mu ki mujj jall jaar bàyyi seex neena ma fu mu demee tamit lim waxante won ak sëriñ bi lay tàmbali jaar na fu bari nak jaar na ci sëriñ su bari waaye fu mu dem rek nee na bu ma xoolee rek gis na kii du sëñ bamba ndax mm-hmm. ndax sëñ bamba daa am lu ñu waxante woon mm-hmm. daf ma waxoon ne ma maanaam bu demee jamono ni nga may xam ne sama doomu jigéen yëpp waliyu lañu ñu góor ñëpp waliyu lañu mm-hmm. bés boo gisee koo xam ne kii jur na kenn koo xam ne bokkul ci awliyaa yi rek du man nee na bokkoon na ci yooyu màndarga doy na waxtaan mënoon nañ ko waxtaane fii waxoon na ko yu bari nag xam na ko tamit ne ko ma barab bu ma ne. Mm-hmm. barab bu ma ne bu ma bu ma bu ma bu ma jógee. Mm-hmm. barab boobu dootul nuroog barab ba barab ba dana soppiku te dootul nuroog barab yi ko wër. Mm-hmm. ku ma noppi ci yow it dootoo dootoo dootoo bokk ak ña nga bàyyi ko. te foo jëmi doo nuroog ñooña. waaw yo bari na yu mu ko waxoon daal. waaw léegi nag moo tax nag. Cheikh Ibra di ko wër ci gàttal. ba ba ba ba bi ko sëñ Maxtaar Touré. ak sëñ Adama Gueye rombee ci xam nga waxtaan wi day gàtt. ndax buñ ko bëggee détaillé day day day doy waa <laughs> ah, mu daal di nee na ci kaw Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi nee na ma nee ci kaw néeg bi laa nekk di takk am néeg. Mm-hmm. di takkal sama sëriñ am néeg. Mm-hmm. sëñ Maxtaar Touré romb ma. Mm-hmm. ak sëñ Adama Gueye. nee na ma siin ci ñoom. leer gi sëñ Bamba waxoon na. waxon ma ne ma ku and ak man dafa bok ci mandarga yi ku and ak man manam hmm. leer gi day fess ci yaramam day melni jigenu day melni jigen jigenu non lelergi wa waaw non la leer gi feese ci mom nee nak mu seen leen gis ko nak Cheikh Ibrahima nee na ca ba ci pelo la mu bay sax da bay net li nama lima lay wax ni Cheikh sama nopp xamna na nak hmm. dana bari ay wax <laughs> waaye man de non la fi jëlee nak ci bay Cheikh waaw Euh, mama ko netali ca ngaay nee na euh, mu daal di leen wax ne leen kon dama bëgg ànd ak yéen dem ci ca ka ngeen jóge ñu ne ko nag dañ noo yónni buñ dëppee mu ne fekk ma tàggu sama sëriñ ci gàttal defe naa nettali naa ko ci bandu ndar bi <laughs> waaw ca noonu nag la la ànd ak ñoom li tax nga xam ne njëbbal dafa kawe lépp Cheikh Ibra bi mu àndaateeg ñoom nee na booba maa ngi topp seen ginnaaw waaye tànk bu ma séq kanu tàkk ci aras malayka yi ñoom tàmbali di màggal di feet gis gi may gis sëñ Bamba ndax xam nañ ne bu ma ko gisee lépp defaru ndax ndax sëñ Touba mënta wan nit ñi nuñ koy toppe xam nga seex Cheikh Moustapha Mbacke dafa am allahu barakaati yi nee na as mënta wax morom mi def ma nii mais gor ni moom moo koy wax nan ko def nii dañ nga wax bi bu baax bu ko defee mu xam ne kii gor la lu mu nangoo def fay man it war naa ko nangu moo tax sëñ bi tànn Cheikh rek ci gor yi. Mm. waaw waaw moom loolu nag moo ko andi muy wër sëñ bi ba àgg Mbàkke Kajoor bu mu àgsee Mbàkke Kajoor it eh, la ca xew yëpp eh, daanaka ñu àggee ci war koo laaj rek ñu ñu ñu wax liñ ci xam incha allah. waaw <laughs> eh, jërëjëf kon eh, sëñ bi am ci war dolli tamit waaw xam naa yaakaar am na lu ci bëgg ñu dolli ko ci ñaari baat ñu leer ko mm-hmm. tudd nga ci wax ne ko eh, ba wér sama doom yu jigéen ak ñëpp wàlliwu la nii doon mm-hmm. wala kii yooyu ndax foofu jonjoo naa loolu ba xam xam màndarga mi ni mm-hmm. xam nga xam ki nit ki loolu comme ni mu bëgg a leer xam naa am na foo ko leer waaye dama bëgg nga leeralaat ko beneen bi ci desit mooy bi muy tàggu sëriñam boobu wax jëm ko waxoon ak yooyu <laughs> waaw waaw Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi ma ko net nettali nee na. bi ma duggee di tàggu saf sëriñ. ne ko damaa gis feneen fu ma mën a jëm. Mm. lii la ma wax de. feneen fu ma mën a jëm. ñu mm. nga nag. Mm-hmm. daanaka ñun waxi wala sax war nañ ko jàng ci Cheikh Ibra. waxi wax wuy jëriñ nit. damaa gis feneen fu ma mën a jëm. <laughs> nee na mënu ko yëwra faal. Mm. te ngaa toog fii ku fi mës a jóge. da ngay dellu doon tànneef ci say bokk. waaye fii kenn du fi jóge di dellu feneen di fa wuti lu baax mhm. maanaam daal masalan daal mhm. booba moom jàpp na ne lu baax ci moom la yem mhm. Cheikh Ibra ne ko du danga xëyoon gis ma nga loolu day wan ne ak murit li jëkk ci moom mooy fulla murit piir day am fulla gis nga fa mu nekk gisu fa lu baax daf fay jóge léeg-léeg xam nga tool ci jamono ji da ngay toog fi barab naan sant yoo ma fi bàyyi Euh, euh, wala bàyyam laa toppoon. Mm-hmm. wala sama doomi ndeya. Mm-hmm. wala sama doom bàjjen na mun moo ko feebar ah xam nga kon. Mm-hmm. jébbalub Cheikh Ibra rek dafa doy émission. mën nañ ko topp noonu di ko toj par benn. mu daal di koy ne. Euh, du dangaa xëyoon gis ma. mu ne waaw Baye Cheikh Ndiaye daal moo ko daan nett naan sama waa am ful la. mu ne ko waaw mu ne ko ma xëy ne la maa ngi dem. <laughs> nee na mu ne ko waaw mu ne kon ñaanal ma nee sëriñ ba mhm. jéppi ma ba ñaanu njéppite la ma ñaanal mhm. te Cheikh rek nee na mhm. ñaanu njéppi ga ndeke ndeke ismulaay l'ensemble nee na yàlla tàbbi na ci biir ñaan ga ndax ñaan gu ñu mas a ñaanal nit sama ñaan googoo ci gën ñaa ndax nee na boobu bu la nit masaa jéppi euh, te bëgg la ko woon dana laa ah, waa baax na ko jublu yàlla na fi yàlla jublu <laughs> nee na sëñ bi ne ma noonu la ma ñaanale di mm. waaw baax na ginnaaw dangay ngay dem mm. foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu Cheikh Ibra nee na ndeketax moom ñaanam nga dafa nangu fa ma jëm fël yiw yàlla yëpp daje waxul na yiw yàlla dafay jublu yiw yàlla yëpp fa la daje la wax muy sëñ Bamba nee na fa ma jëm ndekete ñaanam nga ñaan gu ñu mas ñaan googoo ci gën a nangu te loolu dem nañ ba xam ne yiw yàlla yëpp ndax sëñ Tuubaa nee na ya ummu nii ridwaanu min kulli wijhati fu ngërëm ni ci àdduna rek muy sunam waaw waaw dem na ba sëñ bind ko tey sëñ ba loolu la ko waxoon waaw <laughs> léegi nag doom yi maanaam nee na nee na nee na sëriñ boobu ma demoon mm-hmm. gis naa doomam yëpp mm-hmm. di ay nitu yàlla mm-hmm. waaye neen ba ma gisee benn doomam bu jigéen bokk ci ñu baax ñi saalihaat yi te te te te du du laa xam ne du sëñ Bàmba nee na doom bu jigéen doomi sëñ Touba. Mm-hmm. ndax xam nga sëñ basum sëñ Baara. Mm-hmm. sama wëllëre mm-hmm. sama sëriñ sama xarit. sëñ bas màggat lool. Euh, yàlla na ko fi yàlla yàggal ak Cheikh Sidil Muxtaar. Euh, ku bëgg Cheikh Ibrahima ngoog. ku ku yor melo woo xam ne Cheikh Ibrahima doy na kéemaan. waaye loolu nag jombul. waaw euh, sëñ bas daf ma waxoon ne ma. Cheikh Ibrahima ma ne ko waaw mu ne ma mooy sama royuwaay. Cheikh Ibrahima rek. laa def muy sama royukaay. waaw euh, sëñ Bass moomu nag euh, am na lu lu ma nettali euh, ci ci ci mbirum sëriñ bi ci ci ci mbirum Cheikh Ibra te xam naa ne loolu buñ demee ba ci kanam dinaa wala sax dafa maa wax ne ah. Cheikh Mouhamadul Bachir nafa hmm. na allahu bi barakaatihi hmm. nee na maa ko laaj hmm. ne ko ndax sëtu sëñ Tuubaa bu masta mooy yàlla nekk ci li ko war ba bàyyi ko fi ndax nañ ko mëna a màndaxeeg doomi sëñ Tuubaa dendale ko mu ne ko sëñ Basiiru ne ko ñooñu ngay wax ñeen fukk ci ñom jenn doomi sëñ Tuubaa jigen du seen morom <laughs> ko mastama yàlla déglu wax bi de te ne ci li war ba bàyyi ko fi tey sëtu sëñ touba jenn do ñom ñeen fukk boko dajale dajalee leen ci balance yenn doomi sëñ touba bu jigen wat leen <laughs> waaw ah xam nga ne sëñ Tuubaa bind na gis naa fu bind wax ne. Mm. sama doom bu jigéen ku ko denc sax ñu jéggal. jéggal saw askan. Ah, nee na doomam bu jigéen. Mm. ku ko denc rek askan woow ñu ko dugal. Mm-hmm. waaw moo tax sëñ Moustapha Sall waxoon wax jooju. Mm-hmm, wax ne maanaam. Mm-hmm. Eh, seen seen càmmiñ yi. ñoo leen waroon denc waaye dañ leen a aram. waaw walaay ndeysaan ndeysaan yiw woowu. ndax ci ne kenn ak kenn attul seen yiw. Oh, waaw mu ngi noonu dëgg la waaw. <laughs> Eh, tubarkàlla suñu foofu sax leeral bu am solo loolu yaakaar naa gindiwaat nga ci ñu bari ndax dégg na wax de. waaye ñu dellusiwaat kon ci ginnaaw bi mu ñëwee nag. waaw eh, ci ñëw ci Sëñ Tuubaa jaayanteeg moom. Mm-hmm. lan la fa fekkul woon loo xam tey dañuy wax ne Cheikh Ibra ko fa def te mënu fa woon a ñàkk. waaw xam nga eh, boo demee ci Euh, marché sëñ Moussa Ka mm-hmm. xam nga dafa wax ne mm-hmm. ka xamle woon ak tarbiya mm-hmm. ak ka xamoon ak tarbiya moo buñ demee ba surgee ku leen di wax naka pexe ka xamoon ak tarbiya moom mooy sëñ Tuubaa moom rek xamuk tarbiya moom ndax bakkanu nit ñi ak li ci war téere yi mën nañu wax nii rek waaye li ci ne lépp mëne su ko bind te sëñ bi rek ko xam ku mu gis xam lan moo war ci yow nuñ la war a def moo tax mu ne ka xamoon acteur bi ak ka xamle woon acteur bi Cheikh Ibra nag moo xam xamle woon acteur bi ndax euh, dafa leer ci mbindum sëñ Musaa Ka xam nga bu ñëwee gis nga ko ni ko Cheikh Mouhamadul Basir waxe euh, lim wax tey jii boo ñëwee ci tasawuf da ngay xam ne loolu lu jëkk andi loo xam ne fekkul kenn ñeme ko wax ab sëriñ ndax boo ko waxee ab sëriñ du xam sax li ngay wax wala mu jub walau wala mu tiit ba defene da nga dof de nga bax baax li ma wax sëñ Sali ndax eh, lu nit ne ko man ku ag lay euh mu ñime taxaw ne la nanguna naa yombul de yombul de ah, Cheikh moy waye seigne ken xamul lu mu doon hmm. ndax lu nit ne ko hmm. Cheikh ibra eh, ne ko damay la jëk andi hmm. am am pas pasukoi koy jox sa bop ku nek muy ko te man laa àggale mu wassilil kuy àggale déglu nag li mu wax moo tax conférence yi ñuy def ak forum yëpp baax na sur le soufisme waaye soufisme Cheikh Ibra moo mës sa am ci téere yi ndax soufisme Sëñ Tuubaa amul ku ko yàlla mas a jox ndax soufisme mi ngi tàmbalee ci diggante sëriñ ak taalibe foofu la soufisme ne suufi mu ngi nekk ci tarbiya ak tarxiya baynal xuwati wal maal diggante kattan ak alal ak bakkan nu ngi ko mën a defaree ba mu àgg ci yàlla euh, jaawartu ci la soufisme yam ndax sëñ bi suufi bu wax ne jaawartullaha bi kitaabihi ilaa duxuliya jannatahu nekk ci kaw suuf mm-hmm. ñëpp di la gis nga ne jaxasoo na ma ak yàlla dëkk ak moom ba ba may dugg àjjana nga xam ne ba ba may dugg àjjana nga bindu te it loo jaxa loo dëkkeek yàlla dë bi kitaab yi loolu mooy alxuraan di jaxasoog yàlla ci téerim bi ba ba nga dugg àjjana mooy tasawuf moo tax ma ne jaawartu bil furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zahzahtu lain tasawuf a ngoog kenn mosu koo wax bara ani xaaliqu min siwaahu wa xaadani man laa yara charwaahu ana fu mu ciy wax naa axfaale siran mosoon allah waaw xubban wa laa ilaha illa allah xam nga ñaari ñaari ñaari laa ilaha xam nga ñoo ne ci yaa ngi andi yaa ngi andi waxtaan nag waaw <laughs> ñaari laa ilaha illallah xam nga ñoo ne ci eh, ci ci ci ci ci ci ci jaawar hmm. mhm. fadlan wa laa ilaha illallah ak xubban wa laa ilaha illallah xubban wa borom bëgg gi nga xamne gi hmm. ci bëgg la xoos hmm. ba am sirru la ilaha illa allah seex ibra la waaye fadlan wa la ilaha illa allah sëñ fàllu la moo tax ñu jubo ñom ñaar ñooñu fa lañ ne degg na keroog seigne am mohammedan hmm. di wax ni ko seigne abdulaat waxee ne mom moy khasside la laxat jaaw waaw non la seex ibrahim ak sëñ fàllu séddoo jaawaratu foofu am na laaj bi sew bu ma ci bëgg doom naa waxtaan yu bari na loolu ba du ma xam ne que euh, mooy euh, maa ngi koy wax nag xam na ma si déglu waaye dafa mel ni Cheikh Ibra mm-hmm. ak sëñ Fallou kenn gën leen a dégg sëñ Touba déedéet kenn gën leen dégg sëñ Touba xam nga mm-hmm. dafay loo xamante ne lii dafa neexut a wax seen diggante mm-hmm. euh, nopp nopp maanaam xel mënu ko jàpp dañoo daje nii ci sëriñ bi waaye fanu ànde ñoom dafa sori ndax Cheikh Ibra euh, sëñ Fallou ak sëñ Moudou Moustapha xam nga ñoom Cheikh Ibra rek lañ daan roy ba gisuloo boo demee Taïf wala nga dem Daaru Xuddoos kuñ fa tudd sëñ Moudou Moustapha njañ lañ koy woowe njañ moom ku ne xam na mooy lan ci olof ndax ni mu ni mu ni mu ni mu bi ngir royee ko Cheikh Ibra ngir mën a liggéeyal sëriñ bi ndax meloo Cheikh Ibra rek a leen ñor dafa am nak lu tax serigne bi wax ak ñom ba ba ba nu ah. war war a melaw ñep xaj waaw kay lool la waye ñom ñom ñoo ñi nga xamne ñoy ñoy ñu mag ni mm. ak ba ci ñu ndaw ñi sax mm-hmm. euh, nit ñi xamuñu ne Cheikh ibrahim la ñuy dund ñom ñep ndax ñom euh, genn ñu bëgg sëñ bi mm. ak warmaal sëñ bi ak jox sa lepp sëñ bi kenn genn ko ci doom bi nga sëñ abdullah mm. nga xamne mom moonu damay faral di wax ba ko recentrer mm-hmm. dama doon wër ci tubaab Mm-hmm. baat bu may féetali sëñ Abdou mm-hmm. mënuma ko am ba ba gis benn ma gis ci dictionnaire recentré mm-hmm. mooy lu génnoon centram génn fa mu war a ne nga dindoo su ko teg ko ci fi nga ko war a teg loolu moo doon mission sëñ Abdou Lahad te loolu gën a jafe ci mission yi fekk ku réer nga dëpp ko sax mën nga ko dëpp waaye doo ko mën a centré waat centré mooy nga teg ko fu mu nekkoon loolu la def ruuy moom fi ñu dellu si ci laaj bi. waaw mooy Cheikh Ibra lan la fa fekkul woon. waaw kay waaw kay léegi nag. tarbiya la fa fekkul woon. loolu mu wax sëñ bi tamit. fekkul woon ku koy wax ab sëriñ. waaye tamit nag li ko sëñ bi tontu tamit ab sëriñ daaw ko tontu ab taalibe. waxin wi dëgg jëkk moo jëkk. ajibdu min xaalihi nuura xaqin. tan dafiu amaamahu zulumatul xalq. sëriñ bi danaa fekk ci leeram leer bu dëgg nuura xaqin loolu moo jëkk doy waar nit ki taxaw nii nga ne ko leer bu dëgg laay wër nuura xaqin jooju waaw koo xam ne kii daraam daraam raxu ko lu dul leer suñu borom rek lay wër te dafa àgg xam nga looloo jëkk te sëriñ boobu liggéeyam mooy ni bon gi nit bon ak yàqu gi nit ñi yàqu ak seen pas-pas ni mu yolome ku sa pas-pas yolom da ko war a yeewaat koo xamante ni ki dem nga ba sa doole jiix mënatoo àgg ci yàlla mu mu mu toñ la nga dem koo xamante ni ki doona woon dara mu raxas la ba nga sa teg la ci yoon bi boobu sëriñ laay wër ba noppi nag teg ci ful la joo xam ne lim ko wax tamit fekkul woon kenn du ko am sëriñ su ma fekkul nag kenn ku yor melo yi ma wëri xabroom loolu tam fekkul woon nag ku koy wax waaw fekkul woon ku koy wax. waaw léegi nag bi mu ñëwee nag. sëñ musaaka Ka nettali na foog ma dagg ko. ne ba mu ñëwee Mbàkke Bawol. daf ne na waa kër gi Bawol. naay soq. di rooti. di wal boole liggéey di ko joxe. dégg nga. waaw maanaam. ñëw fekk sëriñ bi fi mu ne. nga ne bu kenn walati tey góor. te kenn gënu laa doon góor te kenn gënu la ci kër gi. Mhm. nit ñi alxuraan ji di jàng. Mhm. di firi ay téere ñenn ñi sax di góorgóorlu di taxani matt lu ne ñu di ko def. Mhm. yow ngi ñëw ne na waa kër gi bawal. mu tàmbale di wal njëlu kër sëñ bi. di ko wal ci loxo. di ko sox. ba noppi yendu di liggéey. dëggoo sëñ Musaa Ka ne yendoo liggéey fanaane root. loolu nag moo ko fi jëkk andi. loolu nag sëñ bi moom kuñ la mën a wax ne defal na lii sëñ bi wax nañ dëgg waaye yéen doo liggéey fanaanee root hmm? <laughs> sëñ bi Cheikh Ibrahima ko jëkk def góor gu rootal moroomu góoram di ko soxal di ko walal dégg nga te it nelaw ci boppam dañ daan yéemu ci yàlla ndax na ko def dégg mu a balaa gunaar balaa ginaar ne kurkuréel moo ko xewal daawul doxe maanaam jeex takk na ci sëñ bi ba ñëw kër sëñ bi maanaam doo génn sax seeti nit mm-hmm. doo dellu ci say bokk déggoo sëñ Tuubaa nee na Yoro Fall euh, bi sëñ Tuubaa laajee ne ma menn xel mooy lan ñu ne ko ah menn xel de mooy ku yor benn bët mu ne déedéet loolu benn bët rek la mm-hmm. menn xel mooy koo xam ne xelam du jàpp lu muy lenn mm-hmm. te kenn laa ci xamul muy Yoro Fall bi mu ñëwee itam mu daal di andi ab yar nit ñi def ak sëriñ booba ku la ne daaw ñu sëriñ xamul li muy wax war maa liin wii lañu ñu xamul ak defin wi te moom la ko yàlla sant mu war ko wan nit ñi waaye boo nee dafa fekku fi woon ñu déedéet fekk na ko fi fekk na ñu fonk sëriñ waaye daye bi lañu ñu xamul ak nuñ koy defee loolu képp la ndax fekk nañ ay góor yàlla ci sëriñ bi ñuy liggéeyal sëriñ bi waaye nag ni mu ko doon defee la ndax sëñ Adama Gueye daana ma jàll di andil sëñ bi te boobu seeturi ñëwagul Hmm? borom daaru Cerno maam Cerno Birahim li mu daj ci Sëñ Tuubaa lu jiitu Seex Ibra di ñëw hmm. loolu kenn sikki sàkkaw ko hmm. kenn sikki sakkawul ne mooma woon ba fa kenn nekkul waaw loolu moom loolu moom kenn sikki sàkkaw ko lu ne dañ koy teg fu mu war a tege bi mu ñëwee nag moom mission wu wane nit ñëpp nan lañ koy defee la ndax tey jii maam Cerno Birahim ak maam Seex su su suñu fekkoon nit ci sëñ Touba. kooku siggi di xool sëñ bi ne ko xàjji. ñu ne ko ab sëriñ kenn du ko xoolee nii daal di daal di daal di bés ndoddali. dañuy daal di ne ñoom dañ fay nekk rek di ay bokk. woo nit ñi ba noppi di leen toroxal. mission boobu ñoom mu ñoom mënuñu ko. ñoo ko waroon a def wolof dafa gaaw ci loolu. Mhm. ay bokk yu daje lañ di nax nit ñi rek. waaw lay ah, mhm. léegi nag moo tax Cheikh Ibrahima ñëwam am am solo. Mhm. bi ñëwee nag ñoo xam ne as gor la. ab jullit la borom xam-xam la am na kàttan mën naa am alal lu ne mën na ko am mu ñëw daal di dindi loolu yëpp teg fee nag daal di andi yar teggin andi liggéey war nit ñi nu ñu maale kilifa nu ñuy toogee ci kilifa ak li sëñ bi doon jàngale ci naxjul al xaaji ndax sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee na ma bi sëñ ci waa taalifee ju ba noppi Cheikh Ibra daa ak si mu ko yaa ngi nii am xanaa xamuloon ne nit ñi xamuñu ne. alxuraan. Cheikh Ibrahima liggéeyal na sëñ Tuubaa ba mu jox ko ko te bu ñuy lim alxuraan duñ ko ci boole. Eh, sëñ bi maa ngi kaamil boo xam ne ñi xam kër Cheikh Ibrahima xam nañ li may wax. tafsirul xuraan la mës nga ko dégg bu sëñ bi def. boo ñëwee sama kër ma wan la ko. sëñ Tuubaa ko tafsir waxuma la taf xam nga da ko daa tere nit ñi. waaye moom def na ko jox ko Cheikh Ibrahima. sëñ Cheikh ndigal mi ko muul yàlla na fi yàgg. téere boobu maa ngi moom. Mhm. nga xam ne sëñ Tuubaa max naa yi ci alxuraan lay la la tafsir ba kaamil bi àgg. kaamil lu lëm te Seex rek ko ko am nag. loolu ndax bari na këri diine. Mhm. kër yi jàngale alxuraan ba ma leen ko waxee dañ ma ne loolu amul. ndax sëñ dalaa tere tafsir man leen. Mhm. sëñ bi nit ñi la ko tere wala boppam. <laughs> waaw kay <laughs> léegi nag Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee kon. ci moo fa andi lëggéeyal sëriñ. di ko xëyal. ba jant bi so. doo soxla ci sa bopp dara moo fa andi warmaal sëriñ warma joo xamante ni ji day mat sëkk bàyyee ko barabam yaa ayuha alladina amanu laa tarfamu aswaatikum fawqa sawti nabii wala tajharu lahu bil xawli ka jahri baxdikum li baxdin an taxbata ahmaalikum gis nga li muy jur waaw daal di tàggale ci jëfam ndax sëriñ Tuuba ku ne daana dégg ñuy wax ne am na ñu daan bokkal lal daa mm-hmm. dégg nga léeg sax ñu ne diw daana bokk ak moom lal mm-hmm. daa nga dégg ni ñu ne diw daana bokk ak moom lekk mm-hmm. ndax ginnaaw du bari sax waaye barkeelu googu daa barkeelu daa nga dégg ni diw daana ñëw toog fi moom di waxtaan ak moom loolu yëpp moom moo ko dindi moo ko dindi sëñ bi sant woon waaye. loolu la suñ borom ko sant déggoo mu ne. mës hmm. eh, eh, eh, na xibaar ak njébbalam ba wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bàmba moo la moom. Hmm. raasi ko jox ko say pexe pexe yi mooy lii. pexe yi nga xam ne ci la nit di jaar ba jëriñu ci sëñ Tuubaa waaye sëñ bi mosu ko ko wax dégg nga mën a la Cheikh Moustapha nee na as gor du ne morom mi toog def ma nii. Hmm. loolu munta nekk loolu boo ko waxee nit du ko nangu waaw dem liggéeyal suba ngoon maanaam lu ma wax nga ne waaw loo am jox ma di ma di ma rootal di ma baleel xam nga bale bu ak root ak di sëñ bi sëñ bi jóg mu topp ci ginnaawam di tudd yàlla loolu moo ko jëkk def xam nga xam nga sëñ bu maam ñang dégg naa ko muy wax ne sikkar sëñ Tuubaa ko jëkk def fii ci Tuubaa mm-hmm. buñ masaa julli ba noppi mu yëkkati baat laa ilaaha illallaa ñu koy aw mm-hmm. ci la ko Cheikh Ibra jële mm-hmm. loolu la nit ñi xamul ba tey te am na ñoom bu ñu séenee Baay Faal yi sikkar ñu naan ah ñi dañuy waxu rek te ne ci sëñ bi la ko jële waaw kon nag Cheikh Ibra loolu yëpp déggoo Baay Cheikh Ndiaye daa na ma Bàmba ji ba muy door dañu noonu du sori nee na ma woy woow maa ko génne waaye neen ba ma ko jókkee woy Cheikh Ibra daf maa tontu ne ma ah, kàcc nañ de ndax mu ngi ci biir néeg bi maa ngi ci perron bi ndax moo ma yar hmm. ma ne ñenoon du sori seeni taaw jébbalu nañu mu ne ah ndeke wax naa dëgg hmm. nee na ma bëgg lu ko neex na ginnaaw sama maama hmm. ndaxte waxam daf maa neex ma daal ci yokk ci woy wi ne ko faal yaa ko jëkk te faal yaa koy mujje mu ne ah bu ma fen loo de Cheikh Ndiaye daa baa jëkkuma fa kër sëñ Bamba waaye lu fa baax maa ko fa jëkk waaw jëkkuma fa kër sëñ Bamba waaye la baax maa ko fa jëkk waaw mooy la baax ji waxul ne ña fa nekkoon nekkee ñu fa lu baax daa bëgg wax ne lii tey jii ñëpp baaxal muy ak taalibe ñëpp di ci wéy nee na maa ko fa jëkk mm-hmm. waaw loolu mooy kon kon mooy li nga loolu moo ko andi yooyu yëpp waaw dégg nga mm-hmm. moo fi xewal sa xel karaw mm-hmm. moo fi xewal soli sagar waaw waaw <laughs> naa yooyu eh, sëñ bi <laughs> léegi am na loo junjoon ci biir waxtaan mu bëgg ñu dellusiwaat ci ak it eh, laaj yi. Mm-hmm. di tam ma ittoo ak ñeme laaj la ko. Mm-hmm. mooy eh, yan laaj koo xam ne du mën a tontu ci la nga koy laaj loolu day indi ki waaye yow nag far yàlla dogal na. Mm-hmm. yi may laaj di nga ci mën a tontu ba indi ci yoo sew sew mooy tasuuf bi yaa ngi ko doon wax noonu. mooy tasuuf Cheikh Ibra. daf mel ni tey bu ñu seetlu woon ñi xam tasu wala ñi ciy gëstu. tasuuf Cheikh Ibra duñ ko ittewoo lool na xañ na da bëggoon nga waat ci ba xam kay waa kay tasawufam da kooku def dañ ko waroon def émission boppam beneen yoon bu ñu yàlla mayee ñu def ko émission boppam ndax dañuy wax naan sëñ bi hmm. euh, bari na daraja jooy jox sëñ tuuba hmm. ba defe ne yaa ngi ko koy jox hmm. fekk am na ku mu ko jox bu yàgg ba bàyyee ko kooku séq ak yàlla loo xam ne xel mënu koo dégg xel mënu koo jàpp xelu nit nopp mënu ko dégg làmmiñ du ko tudd sëñ Tuubaa li mu seq ak suñu borom tuuti nañ ci wax ko kon di ko di ko wax tasawuf noonu xëy na jàngale rek lañ ci jiwlu waaye weesu na yooyu moom nekkul foofu tasawufu Cheikh Ibra moom moo euh, mat a jàngal xam nga fu mu tàmbalee wa tilka daar al axirati naj aluha lillazina laa yuriduna uluwan fi l ard wala fasad alaxira ñu jëm suñ borom nee na am nañu ko moom de te tasawu bu ko nit di dund fii alaakaraa tax xamoo waaye adduna taxut sëñ bi loolu nit ñi war a teel a wax ah alxuraan ne alaaxira jële suñ borom jox na ko ñi nga xam ne laa yuriduuna uluwan fil ard maanaam génn ak bëgguñu ko ci kaw suuf te tasawuf yu jëkk yi lu ñu wàcce wàcc seen bopp bu buñ tolloo di wax ci martaba bi leen yàlla jox mu ngi yëkkati ko te te yëguñu ko waaye loolu sax suñu borom dana leen ko jéggal ndax moo leen ko jox bu leen joxee ndigal wax ko waaye ak yëkkati ko la mm-hmm. Cheikh Ibra nag fenn fu nit mës déggee mu yëkkati boppam amul amul mm-hmm. ndax Cheikh Moustapha Mbacké ba ko tubaab bi nee ku ku ku ko wax ne ko mm-hmm. euh, Cheikh Ibra Fall mii ni ngeen ko def mbaa du dem ba mu yàgg mu mu bëgg jël seen yoon wi Cheikh Moussa ne ko gis nga kii mm-hmm. moo ko waa këram ba bis pinc xam nañ ci ñoom ne dañuy bëgg ku leen moom waaye duñ bëgg moom dara nga xam ne loolu Cheikh Moussa moo ko wax nee na ba bis pinc mm-hmm. Baye Fall yi bëgg ku leen moom waaye bëgg moom dara léegi nag walla fasaad te duñ yàq mm-hmm. xam nga loolu mooy tësawu sëñ bi nit koo xam ne du yàq xam nga baatu yàq googu lañu war a taxaw leerlu ko ak kawe kawe kawe lu ñaar yooyu fi andi coono bi yëpp ci diini ji koo gis mëne su ko defar daa bëggu kawe koo gis ma ne su ko defar daa nekk ci li yàq bakkanam ak li yàq société bi waaye lii defar societé ba dara du yàqu ba noppi euh, wàcc nit ki ba mu am dignité waaye du tax mu yëkkatiku yëkkatikulu loolu fa la bi Ibra tàmbalee dégg léegi nag tasawufam li ci gën a doy waar mooy bakkanam lu jëkk a noot mm-hmm. noot bakkanu mm-hmm. ñi nga xamante ni ñi ñoo ko yaakaar mm-hmm. xamal leen ne leen alal moom ku taxaw moo la téye ak dara ñaar yi jox leen ko sëñ Tuuba hmm? mu jox ko yàlla boo ko defee dootu leen ko jeexal dootu leen jeexal daraja xam nga daraja weesuwul soroor bi hmm? te suufe moo ko may déggoo daana wax naan <coughs> doom def leen ni man su ngeen defoon ni man du ngeen sonn dama nangu liggéey te néew bëgg-bëgg xam nga tasawuf la ci tasawuf la bokk loolu sëñ bi mm-hmm. gars duñ ko waxtaanee mm-hmm. nangu liggéey lool te yemale say bëgg-bëgg gis nga réew mi mm-hmm. li ko mi nii mooy bari bëgg-bëgg te doo sonn da ngay xol jigéen boo gis mi ngi bëgg fu mu toll di diw ci yaramam loo xamante ni maanaam loolu mat na dépense ñaari kër te borom këram loxam jotul ginnaaw moom loxam jotul ginaaw waaye faw ma def ko ci deram di sol lo xamante li lu amna na lu gëna a lo loo def te do àgg foofu xam nga yoy yeb boko sété mm-hmm. rew mi ko fi jox dara mm-hmm. mu jël ko lek lepp te ko tudd mu mer mm-hmm. ndax ñàkkub talu waaw kenn nangul ku ne ku ne ku ne dara nga tay ji ko fi ko fi tay ji rek ah yow bi dong nga mu mer Eh, da ngay dégg na ku koy waxal boppam naan taalibe dong laa waaye boo noonu nit eh, mu romb la nga ne ko yow taalibe dong nga mu ne waa lan la daal di mer. Mm-hmm. kon nag Cheikh Ibra mm-hmm. tasawufam mooy tasawuf bi nga xamante ni moo wér. Mm-hmm. sa bakkan. not sam xel. ndax xam nga Cheikh Ibra ci tasawuf gisagoo ku ci wax wàllu xel. joxe sam xel. Eh, xel la naxaree joxe. seigne sallu deg nga fi ma waxee naa bu baax ba manam ku jël ab xalam jébbale ko xel waxuma xol bi waxuma ruu gi waxuma yaram mi mm. moom loolu da ko joxe boole ci xel mi ndax seigne bi neena mm. Cheikh ibrahim xaram du japp lu dul man manam mm-hmm. du tok sax ba nit ñi def ni mm-hmm. jékki-jékki na fa lamb ji tollu mm-hmm. wala nga jékki-jékki na ah yow mat laa bi rafet na di wala nangam musu ko def musu ko def koku mu jeex deug deug ci ku jeex ci yalla te Cheikh Ibrahima nee na ku jeex ci ku ku jeex ci ku jeex ci ku jeex ci jeex ci yàlla. Mm. doo jeex. doo jeex mm. nee na nga fekk ku jeex ci yàlla nga jeex ci moom doo jeex. Mm. ku jeex ci lu dul jeex Cheikh Ibrahima nee doo jeex. waaw ba noppi nag tamit yor njàngale moo xamante ni mii. maanaam loolu mooy tasawuf. ah de mos naa wax ne ah doom am dara yomb na de. ñu ya, ka am dara la ñepp nit gi gi am dara yomb na dom hmm. da ngay fekk fu dara ne nga def fa dara waaw nga xam waaw léegi maa ngi bëgg laaj benn laaj boo dina ubbiwaat beneen kii mooy babul muridina bi nu koy wax ndax te yaa ngi wax ci tàmbali bi léegi moom njëkkul ci sëriñ bi ci ni nga waxe noonu hmm. lan moo tax mu am garaatu tur woowu. waaw kay waaw kay waaw kay xam nga tur woowu. dafay turu biir. ndax sëñ Touba moo ne ataani laaha baabahu. waaye nag nit ñi duñ naan bunt bi. waaw te moo ne yàlla jox na ma buntam. wala yamur bil baab ilaa bi masiati. buntu sun borom bi kenn du ci dox te neexuma. baabu boobu nag. mooy Cheikh Ibra. ndax alxuraan da ne. يوم يقول المنافقين والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب مم نك موكو نيت لي تي تي تي تي في ني نون كاي 1922 لا كو نيت لي جيب باب المريدين جوجو دا دي واخني ماك سيغ بامبا نافقي لا ني ген الاسلام te mu te lolu moy ba bëri ba béy bi surin lahu ko sur ji moy seigne touba mooy ñew suñu borom ne ko bëgg ci lislaam karanga ci l'islam seigne touba dafa ñew di défendre yonent bi défendre l'islam défendre njabotam hmm. défendre nit ñu baax na hmm. dom adama aadama cëram hmm. ci biir ciir dom adama mo delo nit ku ñul ciirum ba ñu xam nit ku ñuul daral yoy yeb dafa bok ci mission seigne bi motax waaye suur bi nag loxo baabun mu ne ataani laaha baabahu dégg nga bunt boobu ñuy jaare du ne Cheikh Ibra ku mu tijjil doo ku mu tijjilul doo jàll déedéet dañ laa bëgg a wax ne la ku jaarul ciw meloom doo am yàlla ci sëñ Tuubaa loolu mooy bunt bi waaw loolu mooy baatu bunt bi mais du ne maanaam day taxaw fii rek ku ko neex mën a la duggal ku ko neexul mën a duggal noonu daanukat yi wax mm. déedéet du loolu bunt bi mooy moom mooy buntu lu baax maanaam ku ku ku bëgg a jam ci sëñ Tuubaa da ngay jaar ci li mu santaane dégg nga mu ne yoonu murit bu ñu ba ci kanam lu ne dana ko nuyu waaye bu boobaa lu ma daawul def luñ ko ci boole boole du ci lu ma daa def luñ ko ci génn génn ci la waaw daan ne ah doom sëñ Bàmba ak tool la may ñag bi waaw waaw di wax ne ku ku ku jiggi ñeg bi dugg ci biir tool bi waaye ku agsiwul it maa ngi fi <laughs> kon nag loolu loolu mooy wane maanaam baabul muridina ji noonu lañ koy déggee waaye kenn du ko déggee ne. maanaam ndax léeg-léeg ñu wax ko sax ba nit xaw caa mm-hmm. naan waaw kenn ku ne bi ngay fàggu li ngay fàggu. bi rek déedéet. Ah, <laughs> maanaam ku fàggu dara rek ci meloom nga jaare ci sëñ bi. Mm-hmm. ndax sëñ Tuba ak taalibe rek ngay amee dara ci moom. Mm-hmm. te moo jàngalee ak taalibe loolu mooy baabu ji. waaw eh, am na say waxtaan fu ma dégg ne ak laaj bi ma ci bëgg a tegalaat mooy. yaa ngi wax ne alxuraan xam naa euh, sëñ Tuba lépp lu nekk ci alxuraan waaye Cheikh Ibrahima lu alxuraan wax daf koo jëf. Mm-hmm. loolu noonu ci mën a dellu si waaw waaw waaw waaw Baye Cheikh ba Ibrahima Thiam. Mm-hmm. moom ma wax ci njaareem ne ma. Mm-hmm. samaam nee na. alxuraan ba mu daj aaya bu ne sëñ Bamba wax na la tax mu jóg. waaye doom alxuraan ba mu daj aaya bu ne jëf naa la tax mu jóg. xam nga. Eh, dama lay wax ñaari baat diggante allima ak amila seetlu nga ko. ak ami la ñoo bokk yax <laughs> ayin la ak laam ak nuun rek dañ ko wëlbati rek Cheikh Ibra nee na hmm. <clears throat> man allima hmm. saalihan doo ko gis ci alxuraan man ami rek ñaan loolu mooy sama yoon hmm. allima ji kenn dabu ci sëñ Tuubaa xam moom sëñ bee ko def waaye kenn xamut ku loolu ne xam na day wax rek allama ni laahul alim mimma yashaa'u min ulum loolu mës nga ko dégg sëñ kon baatu àllima nañ ko bàyyi sëñ bi xam. Mhm. nañ sëñ Tuubaa rek a xam. Mhm. léegi nag kon lu fi des ami mhm. jëf nañ ko jëfal. Seex Ibra ne alxuraan ba mu daj doo ci gis man àllima saalihan. ami rek. ku waaw. nee na moo tax nag. <laughs> ma tënk ko ci jëf. loolu loolu loolu mooy. ay liggéey waaw waxtu bi xat na waaye fi ñu toll war a leer waaye nag ñuy dimbali rek ndax li nga ñoom liggéeyal sëñ Tuubaa ak Seex Ibra mooy nu mu tuddati damaa amul fu ma doon bëgg ñëwaat waaye ñu ñëw ci Seex Ibra ndax li mu indi ci sëñ bi lu mu roye woon ci ñu njëkk ñi la. wala ci téere tasawuf yi dafa mel ni gisuñu ko ci. Mm-hmm. tam doon lu mënul woon ñàkk loolu fan la ko jëlee. waaw moom moo ko wax. Ah. moom moo ko wax ci wax jooju ma lay wax ca gébb mm-hmm. dana lii ma ànd deful woon lu yàlla diglewul ñu ko ko àttana fi amul woon <laughs> waaw boo demee ci téere imam Shahrani mm-hmm. bi tax sëñ Moussa Ka naan imam Shahrani Kamal mm-hmm. téereem ba bàmbalay misaal mm-hmm. giñ na ne mooy rijaal xut bu yi woon ci xarnu bi téere boobu téere imam Shahrani boobu maa ngi moom téere boobu ci laa jëkk gisee eh, ki jëkk yëkkati ci lu jiitu Cheikh Ibra yoonu Baye Fall ñu ko Serif Majsoub wax nañ dëkk ba mu dëkkoon Maristan al Mansour yi la dëkkoon ca ca ca Misra eh? nit la woon koo xamante ne boo demee ci téere bi fii nii ma lay wax ni boo ko gëstoo ba demee di nga gis nii ma la ñu ne wa kaana radiallahu anhu saakinan tijaaha al majaanin maanaam dañ koo tegoon dof ba moom mu far dem Jakar lok dofi dekk ak ñom hôpital bi ñuy faje dof hmm. nga xam ko dof fa lañ lay yob hmm. fa la ñaan tak hmm. <laughs> dal di sañ ci lok ñom wa kana radiyallahu anhu saakinan al majani dal di wax ne wa kana radiyallahu anhu mu ngi ia téere ba de yaakulu fi naxaari ramadan da daal koor waaye wa kaana kulla man ankara alayhi yaxtibuhu fi lxaali dañoo gis ne nag lekkam googu ci weeru koor ak ñàkk jullim googu ku ko weddi ci saa si dangay ngay alku boo génn bis bi ah ñu dajaloo man ca téere ba ne ko léegi nan ngay doone sëtub yonente bi sallallahu alayhi mom turam sax wuñu ko bu baax Chérif May Soub rek lañ ci bind waye wax nañ mu ci Maristan Al mansouri la dekk bi tuddu ma bo boo Misra ba tay ma nga ñu ne ko waaw lan motax nga am li nga am mu ne ana maxtuuxun akhtakhani rabbi ana maxtuuxun akhtakhani rabbi man dañ mm-hmm. ma gorel te ki mom jam moma gorel te sëñ Tuubaa nee na inni abdun wali jaada bil atxi <laughs> wala jaada bil mu ngi ci loxo sëñ Tuubaa fi mu nekk nii boo ko dee wax ñu naan yàlla kum bind nangam ak i nangam waaye yàlla li muy séq ak jàmm sëriñ Sàmba yàlla na ko yàlla yokk leer képp kuy waxtaan ci yàlla war nga koy fàttali ko di ko ñaanal sëñ Saam nee mm. yoonu sari a nekkul ci yàlla may ab jàmm ñëpp di deg dégg mu yoonu sari a nekku ci may mom sari ay yoonam nekku ci nak na nit ñi xam loolu mm-hmm. nit ñi nak dañuy bëgg jël sariya mm-hmm. jaxaso ko may ko borom te sun borom ne yafalu ma yasa mm-hmm. ya, yafalu ma yurid faalun lima yurid am gor gu nekkon fi ci Touba ñu daan ko bay faalun nena alquran da jang na ko mom mu way faalun yurid dal tax na xaw def bay faalun lañ ko da way fi la nekkon ci Touba xam nga sëñ tubaay xool xoolal nitu tasawuf boobu rek fa mu àgg ci tasawuf nga xam ne moom tasawufam yëpp baatu faalun li maa yurid lay dund xam nga loolu déggoo gars yi di ko wax te bàyyi faalun fii la nekkoon ci Tuubaa nga xam ne ku mu romb bàyyi faalun mu ne moo ma jaaxal de <laughs> te te fi ne duñ wax ba tudd ñooñu. loolu hmm? loolu di di yëgoon nga ne amoon na fi ci Touba. waaw te day ram mbedd yi rek di dox naan ah. jàng naa alxuraan ba mu daj waaye cay fa alum duma yi. xam nga loolu moo jaaxal ñëpp. waaw léegi nag kooku nag. Hmm. daan ne ana maxtuuxun axtaqa nii rabbi. Hmm. ñu laaj ko ne ko waaw lan moo tax. yàlla gorel la te gorel yonent bi xam nga ko wax yóbbu. Ah, ah. mun leen wéru leen. ki war a wan nit ñi nuñ koy jaamoo boo ko gorelee da nga amati ko la jaam kon kay bu da nga naa bu ma kenn jaamooti daa di wax ne waaye sañ ngaa fekk ku la neex ci biir jaam ñi nga gorel ko te du la wàññi dara yàlla moom lépp wali jaadu bi ëpp jooju nag Cheikh Ibra la ko sëñ Tuubaa roofaat la loolu ñàkk jële gi ñàkk woor waaye kooku moo jëkk yëkkati loolu Cheikh rek nee na mm. yoon bii ma taxawal doonul woon lu yàlla diglewul ku ko attan ma fi amul <laughs> ndax ba cheikh de deccalo sek neena cheikh hmm. ibra ëpp fit ci aduna cheikh de deccalo sek bu bu nguraan hmm. wa hmm. neena cheikh ibra ëpp fit ci aduna ndax neena yoonu ñàkk juleeg ñak wor bu ko sun borom di joxe ma ngi taxaw ne bokk naa ci ñi wo ne ndax atam ngeen ko muju jamono neena man ma du ko xol ba mu yag ma gis coow li ma ne ko coow li neena cheikh yow da yëkkati loxam ne ko jox ma yenn ma moo tax mu wax ne mm. doomu waaj leen yéen ñi ànd ak man waaj leen kat mm. Mm. lu dul Ibra Fall wasin na biig dégg naa ko te dañoo xam ne buñ ko waxee kenn du ko gën ndax góor du wasin mm-hmm. kon nag waaj leen di ngeen dégg lu ne yéen Baay Faal yi <laughs> waaye nag ngeen ne ba may jógu champ borom dama ko laaj ne ko mujjub jamono mm-hmm. déglu baax loolu sëñ te lu nit ñi ragal nag sëñ Saliou <laughs> mais dama ne suñu borom mujjub jamono te kat Cheikh Ibra li doy waar ci moom mooy euh, da yàlla nee na ma mm-hmm. neen damaa laaj suñu borom na ko mujju jamono lu gën a gaaw yóbbu nit ci yàlla. Uh-huh. mu tuuma ju dul dëgg ak joxe ñam. nee na <laughs> yàlla ne ma boo demee. Hmm. tuuma dëgg wéy rek te xoola tey ji tuuma joxe ñam ak joxe ñam. nee ñu tuuma la te du dëgg nga muñ rek. ak joxe ñam. Cheikh Issa waaw boo gisee seex yi sëñ Tuubaa yëpp daanaka moo leen fi mujj joxe ñama tax Baye Mahmoud Gaye ma ko wax. Mm-hmm. ah Sëriñ mm-hmm. Assane Fall. Mm-hmm. boo masaan ñëw uh, joxe ñam ni mu ci meloon kenn melu ci waaye gis nga ko sa yër ak baatin la boole woon. Cheikh Sërif Assane waaw mu ngoog <laughs> kon nag ñaar yooyu fi mu ne li muy gàtt gàtt gàtt gàtt moo jàll nit fi mu ne te nit ñi xamuñu ko tey ji koo tuumaal mu mer di dem naan damay koy damay raxas sama der ba mu set liñ ma waxal du dëgg danaa ko def nii danaa ko porter plainte mm-hmm. danaa ko def nii mm-hmm. gisoo gisoo njiitu réew mi nit ah, nit taxaw ne ko jiiñ ko loolu mu ko jiiñ ah, hmm? waaye gis nga ko mënu mm-hmm. ko muñ da daan ne da leen di da leen di topp <laughs> ah, te te fi ne ne bu noon cell bàyyi ko def li Cheikh Ibra wax moo tax ma bëggoon président de la république. Mm. ba ci ki gën a ci Sénégal. Mm. waxuma ñu dooni Baye Fall waxuma ñu dooni Murid. Mm. waaye ñu wax leen kuy Cheikh Ibra rek. jikkoy Cheikh Ibra ak melo Cheikh Ibra mooy jàllale nit ci jamono bi. Euh, léegi li ko waral nag suñ jaay suñ dool Cheikh boo ko dee jàngale mhm. ñu bari dañ ko du déglu ak jàpp ne Cheikh warut ko waruñu koo jàngale ci mhm. euh, ni ko nit ñi xoole ak fii ak yooyu mhm. ci jëfin yeeg yooyu yaa ngi doon wax bëgg naa bu ñu jógee foofu dugg ci buntu julli beeg ñàkk julli beeg yooyu nga ci doon wax noonu euh, xañ na loolu tax na sax ñu bari boo koy bëgg a jàngale duñ la déglu sax ah, kay ah. waaw xam nga loolu loolu loolu dafa yàgg ci jamono saa boo àndee lu bees lu nit Cheikh Ibra fi hmm. ak li mu hmm. ba léegi ñu bare bare bare mënuñu ko dégg. Hmm. ndax daañoo fekk seeni maam. ak seeni baay. wii ci dara ba ne leen lii rek ay dara leneen du dara yàlla amul weneen yoon. amul nees ko mën a jaare nu dul nii. Cheikh Ibra xam weneen yoon xam nga ab turuq la ak char min adadi anfasinaas yoon yi jëm ci yàlla ñoo gën a bari nooyi nit ñi nooy. yàlla fes ko mën a jaar dafa bari Cheikh Ibrahima nee na bi ma sukki ci Sëñ Bamba jéblu lu jege fukki bunt ak nangam ubbeeku na yoo xam ne mës ta ci àdduna benn bii laa ubbi coow li bari ma bàyyi ci des ne xam naa yeneen fukki bunt ak nangam yu bokkut ak yoonu Baye Fall bi bu ñu mën a ame Sëñ Tuubaa ah, waaw nee na benn bi laa ubbi coow li bari hmm. ma bàyyi ko <laughs> kooku sëñ bi. Ah. benn bii gis nga ko ni nga wax. mënta dugg ci bopp nit ñi bu ci boole woon yeneen fukk fu nit ñi jëm. waaw yaa ngi ci doon junj tamit ne Cheikh Ibra eh, yëg-yëg la eh, mm-hmm. te lu ñuy yëg ñu yëgal la ko. Mm-hmm. yow loo bëgg a wax foofu. waaw kay waaw xam nga yëg-yëg. Mm-hmm. Mm, boo gisee moom moo ko waxal boppam. moo ne man ci yëg-yëg laa ne doom. Ah, xam nga yàlla ci boppam. boo gisee mu naan. waylun li kulli hummazatin lummaza alasi jamaa maalan wa abdadahu yaxsibu anna maalahu axladahu kooku alal tax na yëgatul yàlla anna maalahu axladahu kooku jàppul ne yàllaa ko fiy saxal waaye lu ci te kalaa la yum basana fil xutam gis nga ñàkk yëg yàlla ci ci lu mu la jox gis nga li muy andi nga dégg mu ne waylun lil musalliina nga ne ah ak ni yàlla fonkee julli mu ne alazina hum an salaatihim saahoona saahoona mooy ñàkk yëg jam ju ëpp ci julli ak eh, ñàkk fonk julli la rek nga sëñ Tuubaa ku xam na ne ñaari ràkka ndar yi eh, màggaluñu julli ji julli màggal yàlla la kenn du màggal julli julli ci boppam mooy màggal yàlla waaye ba sëñ Tuubaa jullee ci ndar yëg gi mu yëg yàlla ba ba ndar yëgatul dara loolu lañuy ñuy màggal ndax lu toll ni puissance coloniale. nga taxaw ci bureau ndar ne allahu akbar kooku xam nga ne yëg-yëg foofu la foofu la tàmbalee fa yam yem yëg yàlla foofu la tàmbalee fa la yem ndax bakkanam xajoon na ci. maa ma bokk ci benn laaj. waaw foofu dégg naa ñu wax ne comme sëñ bi. fi mu dikkoon fi ko attan fi mu nekkoon avant muy agsi ci bureau gouverneur. Mhm. foofu la julee mais biir boo gouverneur bi julee wut foofu yooyu daal. waaw waaw xam nga xam nga xam nga loolu. Hmm. fi mu nekk nii loolu euh, taarix moo koy andi. Hmm. waaye nag gis nga sëñ bi. loolu hmm. la waaye mën a wax. Euh, li li li li tubaab yi nettali. ñoom ñu ko yóbbu woon. moo gën a wóor li li gars yi di nettali xam nga ne tubaab fi mu nekk nii du fen. fi ne bu ànd ak yow nga duma ko. da koy bind nëbb ko nag. ngir ëllëg. waaye du fen ne ne duma woo danaan duma nu ma duma yu leer waaye bu ko kenn génne ndax kon du baax ci man <laughs> waaw tubaab yi ñoom hmm. ñoom li ñu li mooy ci gouvernance bi la jullee te xam nga gouvernance bi ci boppam rek hmm. moom moom moom mooy mooy bureau gouverneur ah bu ñuy wax bureau gouverneur gouvernance bee tax ñuy wax mhm. hmm. gouvernance bee tax ñuy wax que mu jullee ko ci kanam bureau bi wala mu jullee ko fa mu nekkoon Euh, ndax ndax ndax ndax bu fekkente ne fa mu nekkoon. Mhm. fa la ko jullee. Ah. ah kon du mën a sëlmal ne ana ki ma woo. <laughs> ndax booba ñëpp a ngi teew. Mhm. loolu tax moom waaye nag histoire moo baaxoo loolu loolu histoire moo baaxoo loolu mm-hmm. te xam nga nit ñi fi mu nekk nii mm-hmm. xel mu gudd la ñu nekkee ci sëñ bi fi mu ne nii mm-hmm. waaye pas-pas taxut ñu kii ko gisoo wax ji ni mu bëree moo tax ñu war a dellu ci Cheikh Ibra dellu ci pas-pasam bàyyi wax ju bari ji ak di werante ci ay baat yoo xam ne yi daanaka du jëriñ murit dara ndax murit bi fi mu ne bu sëñ bi jullee fañ ko kii woon ak mu jullee fii. Ah. julli na foofa rek. <laughs> te bëgg noonu ko fa julli te bëgguñu ko fa julli rek loolu rek la sëñ bi soxla. <laughs> waaw mu ngoog. léegi nag histoire moo baaxoo loolu. Hmm, waaw. léegi léegi ñu ñëw ci ñaari laaj ci des <laughs> xam naa. ñëw ci Cheikh Ibrahima ñàkk julli gi junjoon nga ko te dama gisit lool coow li bari ci lool. Hmm. bu ko defee benn bi ci des mooy témoignage yi mag ñi defoon ci moom ñi àndoon ak sëñ bi ndax. Hmm. fi mu toll témoignage yooyu moo gën a wér yeneen yi. moo gën a wér yeneen yi xam nga xam nga moom. mboolem ñi nga xam ne ñoo koon sëñ bi. waaw dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko bàyyi xel. ndax ñoom xam nañ ko. waaw ndax ñom dañ ko bàyyi woon xel ndax ñom ñoo doon dund ak mom xam nañ koy Cheikh Ibra mm. ko melni seigne Ahmadou Diaw taxa mm. gis nga eh, woyam woo mo woy wa li te ngaa ñëw ci julli gi ba noppi ñu mujjé lool wa wa wa la jé bari lool ma ngi koy jégalu waa kay wa wa wa xam nga mm. eh, ñak julli soko ko ci l'islam té ñu né yonent bi julli la mujjé diglé waxat né julli lañuy ñuy sét ci jamm bu baxé lepp bax man len ah te ngeen a def ndànk bu baaxee la ñuy wax de te alquran ne innal munafiqina yuxaadi'una allah wa huwa xaadi'uhum ñu ne ko waaw yow yàlla nafiq yi nuñ la ware mu ne wa ida xaamoo ila salaati xaamoo ko salla yurauna naas wala yazkuruna allaha ila xalilan مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فمن يدل الله فلن تجد له سبيلا القران دلو واخنا والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا خمغا خمغا خمغا جاك جي تاخون ني ديكو وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يخلفن ان اردنا الى الحسنى ولا يشهد انهم لكاذبون سيدنا محمد لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على تقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم xam nga lu yàlla jàkk fan bihi fi naari jahannama jàkk jooju muhammad suñ borom da ko ne nang ko taal tey ji soo soo xëyoon fekk ak jàkk mandarga yooyu nekk ci nga ne nañ taal jàkk ji dañ naan taal jàkk loolu loolu nan la ko jullit mën a defe mm-hmm. tey dañ tey suñ borom a ko digal ne ko tàllal jàkk jooju dégg nga mm-hmm. kon dañu war a recentrer waat nit ñi mm-hmm. xam ne julli ñu ngi ci fiir yàlla fi mu ne di ci fiir àdduna fi mu ne ni ku bëgg a def projet jàkk ngay tawax te yàlla taxulaa jóg ku bëgg a def projet bëgg am alal bëgg dund euh, centre islamique ngay tabax waaye yàlla xàmmee na lépp wala yazaalu bunyaanahum allazii banaw riibatan fi quluubihim ah léegi fi mu ne nii ñu ngi fiir yàlla ci jàkka dëkk boo dem jàkk yaa fa ëpp dëkk boo dem euh, bu la ëppee jàkkit yàqu-yàqu yi fa la ëppee mës ngaa gis dëkk bu mel ni Tuubaa gi sëñ bi ñu fiy yàqi sàcc ak di fi def naka su dul noonu ak bëgg barab bi ni mu selle sëñ bi te fi ne foo wëlbati ko rek yaa ngi gis ñu naal jàkk hmm. te loolu lu baax la ndax bëgg-bëggu sëñ Tuubaa la woon hmm. waaye ndax li sëñ bi bëgg hmm. ba tax muy julliloo nit ñi ndax mu ngi ci nit ñi nit ñi léegi julli dañ ciy fiir lislaam di ci nax lislaam di ci nax nit ñi mas naa dégg koy yedd doomam ne ko loo mën a def ci àdduna baax na mais del julli loolu ni ñu koy waxee ab julli maanaam mooy bo bo bo bo la nee bo bo boo jullee ba noppi. Mm. doomu jabar jàmbur joo gis mën nga caa dem. Mm. alalu jàmbur joo gis sàcc ko. Mm. te inna salaata tanha anil faxsaa'i wal munkari. ok ah, Cheikh Ibra nag. li nag andi ñàkk julli gi lay wax dama ko andi nii rek. <laughs> korite gi Sëriñ Assane mujjee ci njaarim. keroog ba ñu demee ca korite ga xam nga Baay Faal day julli korite tabaski ah, la tax ñu def it légui bañ ca démé mm. ba sëñ Modou Aminta mu bax ma mm. mujjadit bobu nga xamné ne bu ñuy wax mujjadit mm. sëñ Modou moy mooy mujjadit xamoo xam nga fu mu nekkee da mo moo doon yeesal ak bi <laughs> waaw tax di bayi ko xamuñu li ñuy wax ah sëñ mu leral li mu leeral ci ko wana ko nit ñi nga xam ne benn parcel ci dundum bu mu te ak amul mooy yeesalaat yoon ngirum taalibe moom ba nit ñi xam luy ak taalibe ba àgg na ba ci këram kenn du lekk di euh, ceeb bi di rot kenn du dugg ci néeg te kiiwu ne yaraat nit ñi waaw yàlla nañu ko yàlla fayal ci barki Seex Ibra maamam dégg nga hmm. <clears throat> fa ma toll woon ati li tax julli ak yaa doon wax naa waaw kay bàyyi Seex Ndaw léegi nag sëñ mu doon itam moo doon jottalil Sëriñ Asad hmm. maa ngi ànd ak sëñ Seex Fall Baye Góor sëñ Baye Cheikh Ndao jóg taxaw. maa ngi nuyu sëñ talam mu Abdou Sakour. ndaysan day defu ma gisse na ma ngene lu Cheikh ibrahim wax fofu di nuyu sëñ fallum sëñ Abdou Sakour. euh <laughs> di nuyu walé mbolém khalifa Cheikh ibrahim keur kër Mortala. di nuyu sëñ Cheikh Mbawar. Mm-hmm. maam Ibrahima mi ñu bolé tamit nak di sama xarit di sama ki mang koy siaré bu baax a baax a di ah, siaré keur Cheikh ibrahim yëpp. sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Modou Ablaye ñëpp mm-hmm. rek maa ngi siyaare sëñ Cheikh Ngunda. léegi. Euh, Baye Cheikh Ndaw jóg taxaw. jotaay boobu ay junni nit a ko fekkee lii ma lay wax ci njëriñ. dafa am lu xew ci yoonu bi ay Baye yu julli di woor di dem màkk. daa am ci Baye Fall yi te nga am na ba tey. Oh, ba <laughs> mu ne te nag damaa bëgg wax lu ma Cheikh Ibra waxoon. Baye Cheikh Ndaw Serigne Assane ngi toog. Mm. Serigne Cheikh Fall a ngi toog. Mm. ñu baax ñëpp a ngi toog. Mm. Cheikh Cheikh yëpp a ngi toog. bisu kori. na njëriñ. ko fekkee. mu ne. Cheikh ibrahim nee euh nee ma Cheikh manako fal ko buma kenn fen lo new ma kenn bum julli bum wor yalla ma wo bum wuyu ko mu ne ma amee ma lo bor julle kor ya ko andal bu ngeen ko defee duma len fay nama bankal sa baaraam ma bank sa baaraam mu ne ma liggey gën jang joxe gën julli ma do gën kor gis nga bam ko waxe karo julli ñoy yak waxtan ma demat ba ci bàyyi Cheikh Ndaw tok ne ko wax ma mu bindu ko mu ne ma Cheikh Ibrahima ko wax liggéey gën jàng joxe gën julli maandoo gën koor waxul ne liggéey jàng baaxul waxul loolu gën la wax waxul julli baaxul joxe gën julli xam nga lu tax fa ay namaatu wóolu fa sama wajullah wajalla foofu eh, eh, sëñ Cheikh Fall daana ma wax naa ma njaga ma ne ko faal mu ne ma booy julli jublu soow dana nangoo ma ne ko déedéet ah naa jublu soow penk bi kay ngay laaj nag mu ne ma booy joxe jublu penku nag mu ne ma ma day nangu mu ne ma bëj gànnaar nag mu ne ko amul xibla mu ne ma ah <laughs> joxe amul waxtu amul xibla Cheikh <laughs> Ibra waxul ne ah. julli dana julli joxe ko gën joxe gën julli daan ne maandu moo gën koor te gis nga fi mu nekk nii boo seetloo. bay fal yi. bay seetlu ñu maandu dëgg dëgg dëgg dëgg. du ñu laal lu bon fen boo duggee ci kër Cheikh Ibrahima nga koy gis. sëñ Modou ta misaal la ci. wax na aw nit fekkee mu ne mosum ba ma ba ma xàmmee sama ndey sama càmm mosuma def lu yàlla tere. te sëñ Modou Moustapha Fall. sëñ Fallou nee na. juróom-ñaari cërëm yi mos def lu yàlla tere. te loolu lañ soxla ci jullit sëñ bi loolu lañ ci soxla de mm-hmm. ndax tanha anil faxshaay wal munkar kon nag mm-hmm. boo demee ba nga xam ne mm-hmm. faxshaay wal wal munkar suñ borom tàggale na la ak moom waaw Seex Ibra wax na ci ay yoon. ci julli wax ci ay yoon ci hmm. kii waaw. yaa ngi doon dugg yi nag mag ñi témoignage yi ñu defoon ñu mu àndaloon ndax ñooñu nag du yàlla kuy xam Seex ba ñoo la ko gën a xam. Hmm. te luñ ci wax mu doy. waaw mu ngoog sëñ Thierno Diaw dañ ci doon waxtaan hmm. moom sëñ Mat Diaw Paxa yàlla na ko yàlla yokk. te garaatu sultaanu lawliyaa boobu ñu sëñ Fallou nowoon ko teg naa ko ci sa loxo. waaw ndax nee na sëñ Fallou moo mënoon. li sëñ Mat li sëñ Tuubaa joxoon sëñ Mat Diaw mu ngi nii sama loxo <laughs> laaj ko ñu jox la ko waaye daa amul laajin. Uh-huh. ma ne ko ni nga koy laaj mën ne kañña rek ca daara ja kañña <laughs> waaw sëñ Thierno noonu ma koy siyaare bu baax a baax day sama bàyyi di sama kóllëre léeg mu dimbali ma ci xam-xam nee na uh-huh. sëñ ma jow paxa <coughs> <coughs> eh, sëñ Touba ci baaxam sëñ bi mayee na lu ne da ko dafa may dafa mayoon sëñ mat jaw paxa muy doxantu àjjana te ne fii ci àdduna uh-huh. waaye nee na sëñ mat jaw nee na de da sa bu sa bu doxonto ba ba gis kri aljana yi bu delusé day ñëw fi sëñ Tuubaa ne ko cheikh bi li ko jox upp na sëñ mu ne ko dafa wone da ko liggé mu ne ko da upp na rek mu ne ko lu mu doonon mu ne ko day def aljana suma fa dem bu ko wëree bam ag kër gu ma gis diko yëm bu ma ñu Cheikh Ibrahima la ko mom xana mom mo ñu sédd ëlëk mu ne ko ndax am ku ne am na de yeen ñep am ngeen waaw ah, mu ne ko nag dama bëgg nag fa mu teggee tànkam ma teg fa sama bos sëñ Thierno may nettal bi ah. nee na sëñ Tuubaa ne ko loolu faat na waaye dinañ la may yow nga seen pënd bi moo tax mu woy woy wow fa ilaa abil muridiina waxaa iduhum <laughs> a Cheikh Ibra Fall mox jële mox jëli sawi lakyaasi walla an kii abil muridiina waxaa bàyyi murid waaw ba noppi di aji womat seen moo leen di womat mm-hmm. ñu ne ko kan la mu ne ki nga xam ne al akiyaas wala lamsaal mm-hmm. maanaam xel mënu mm-hmm. ko jàpp raw na xel yi waaw kooku laay wax <laughs> ilayka ayaman law dara naasu xiilaka la jaadika na un wasubul ila sabilika <laughs> yow sa dund gii mm. ñi am na yow sa dund gii <laughs> waaw nit ñi dañoo war a jóge fu sori di ñëw di soobu sa yoon wi te mu ngi am <laughs> ayaa booxu ibrahima law laa xasadata la rinaa la xaalo akilina malila la la wax booxu la wax Seex Ibra mm-hmm. yow yow yow mu yeewu mi nga xamante ni li ñuy wër yëpp yaa ko gis mm-hmm. bu dul woon kiñaan mm-hmm. dañuy xam ne lu waay sukk di ko jëfandikoo yaa ko moom waaw gisoo dem na ba ne ko kunnaa fadila kañ ma ciy waxtaan ak sëñ sëñ na Jaw mu delloo si ma xam nga dafa dégg loxo sëñ na ne ma kunnaa fadila ka mooy kullu naa naxtadi bi ka ñun ñëpp ci yow la ñu rey mooy kunnaa fadila ka fekk daa am nu mu firi woon fadila ka mu ne ma déedéet ñun ñëpp ci yow la ñu rey mooy fadila ka ji